dal leen ak jàmm ami site internet réew mi tv li gën a fos ci boobu xabaar yi nag dañ koy door rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun avocat Ousmane Sonko bi Ba nag moom la yaayam génn àdduna rek niki tey moom maam Anna Gaye nag mi ngi ñàkk bakkanam niki tey rek atam toll woon nag ci juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent jamono ji nag enterrement bi nag dinañu ko amal niki tey bu ñu jullee tusubaar rek fi nga xamante ne nag moom mooy ca cimetière bu Yoff bi ginnaaw bu ñu jullee tusubaar ba noppi rek dinañ ko jébbal boromam ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yërëm ko te xaral xaarel ko aljana ñu ngi koy jaale nag ah, sénégalais yépp di ko jaale képp koo xamante ne rek jamono ji nag xam nga kii di maître Khoureychi Ba wante nag di ko jaale njabootu ba yépp nag ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko te xaral ko aljana du ñàkk rek dinañ ci ñëwaat yeneen jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàtte abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen info